CityLink Austin Banjul project moom nag nekk na project bi nga xam te mu ngi nekk ci diggante Austin City Banjul bu nekk Belgium ak Banjul City Council bu nekk ci réew mi lii nag European Union ñëw ci dugal seen koppar te project bi nag mu ngi toll ci 3 million euros te li leen tax a jóg moo nag pour defaraat Banjul Annette Camara moom nag moo nekk communications officer bu CityLink Austin Banjul moom nag wax na Paradise TV lan moo leen tax a jóg. su ko defee nag projet bi dafa am jublu si juróomi fànna yoo xam ne benn bi mooy ah, good governance good governance nag mooy naka la ñuy tëraree réew mi ak naka lañ koo doxee te ku nekk bokk ci gis ci boppam mooy involvement bi ak engagement bi ah, beneen bi nag ah, mooy waste management bi waste management bi suñ ko waxee moom dulu lu ees problème yi mbalit la ak problème yi pax yi te Banjul du ku nekk xam na ne mbalit ak pax yi suñ problème la naka la ñoo defee lii bem tane wala bem nekka loo xam ne lu gén la te kenn du si sonati kenn du jooyati ndik pax kenn du jooyati ndik ah, mbalit ah mu continuer di wax ñoom si lan lañ nekkoon tey waaye tey moom ah, programme bu ñu amoon tey biir Banjul ah, soo bàyyee xel si junction yi boori mile 7 jublu radio seed ba comme kuy dem si boori baamel yi christian yi soo jubloo boor boobu di nga bàyyi xel ne tey am na ñu soloon t-shirt yu weex ñu ngi doon for ay kayit foofu noonu parce que tey moo nekk bés boo xam ne ah, bés buñ jagleel ah, setal yooni géej yi la ñu xamee ko si international coastal clean up day so international coastal clean up day nag jar nañ ñu ah, ñu celebrate ko jar nañu maagal ko Camara nag wax na ne jàngoro coronavirus bi laal na seen liggéey bi waaye taxul nag ñoom ñu ngi doon def seen kéemtalaay kàttan pour mun liggéey waaw ah, ñu ñëw si wàllum coronavirus bi ah, ñu xamee ko ci mbas mi ah, moom nag nekk na loo xam ne tardel nañu tuuti dina wax ne tardel nañu sax parce que waroon nañoo romba fuñ nekka nii bu du su nekkutoon ak mbas mi waxtu bi waroon nañoo sori waaye bétee rek ak lu mbas mi mun di ñëw rek ñu leen a fàttali ne comme saay bu nekk niñ ko dee waxee parce que amoon na time ñu ngi doon wër biir Banjul di joxe hand sanitizer di joxe am lu ñuy raxasee raxaseekaay loxo. si xibaaru Kocc Barma fii si Paradise TV Awa